gars yi dëkk bu sell ba yéen ñi ñëwagul yéen a ngi tardé lu neex dëkk ba commencé naa fees tey jii nga xam ne daanaka image yi bi ñu koy filmé booba deux heures du matin jot na ci biir Tiwaawan gox yi fasantikoo yi foo tourné circulation bi dañu taj ci oto yi démb ñu gis ni gars yi daanu gi ndax mos na fee am bu fekkee mos na fee am bëri yi nit ñi teel nañoo dugg Tiwaawan yéen ñi duggagul nag damay ragal toujours nii ñu naan suba ginnaaw suba bu ñëwee maanaam boobu change ci buntu bala yem ko tey njaasaan ak yooyu wala ñu gàmmoo njaxate njaasaan ndax suñu tool yi dëkk bu sell bi fees na dell dell dell dell maa ngi ci euh, yoon bi nga xam ne moo wër ko ni bu ak jaay ko wër ci lanu def di mu dikku loole tamit moo am ba ci diggante Tivaouane ak Thiès ba fi may wax ak yow nga xam ne a presque trois sur mooy la ñu ngi jaar ci yoon bi léegi Thiès ba Tivaouane teg ci la def oto mënta dem mënta dikku ci deux heures loolu moom bëriwul bu ñu daan am ci gàmm euh, daanaka bu ko doon wax ci taalibe Cheikh yi ñëpp kenn ku ci nekk sa xol ak sa xel ak sa xëtër mi ngi dëkk sell boo dee di Tiwaawan commencé yooyu ngeen gis ko nag dëkk ba commencé naa jël am couleur nit nga commencé na ñëw nit ñaa ngay commencé barikaar macha allah loolee nag di taw jëf ci li nga xam ne bu sell ba ngeen gis commencé noonu daanaka oto yi muy oto bu mag wala oto bu ndaw yow bu jéggi si bi daanaka bala neexee fekk da ngaa yor oto boo a yomb bu fekkee oto nga yor wàccal ci fi garage bi la leen di des boo amee ak cawarte saw yoon gaaw nga dox ko dem sab dal looloo gën a gaaw boo ne cëpp ci garage bi rek mën ngaa jël lay ah, daal la takk ko ba mu dëgër dox gën a yow ndax daanaka lu jëm ci ay biir oto ci koñi moom yaakaar naa ne bu yomb lool te li ma jaaxal mooy su bëdu gàmmu ginnaaw suba la gàmm ànd dogal borom bi ba léegi ñu kaat loolu yëpp daanaka doy na waar ñu ngi bu baax a baax ñu ngi